tay dañu daje woon euh, préfet moo ñu woo woon également ay services déconcentrés yi nek Thiès mais aussi ay acteurs culturels ñëpp ñu yëngatu dal ci walum aada ak cosaan euh, ñu mëna a édition festival Kaay Thiès festival Kaay Thiès euh, nekk loo xam ne di le maire de la ville de Thiès dal Sylla la moko initier liko ko tax a lenn rek la moy suqali développer culture fi ci walum Thiès donc nga xamni ne Thiès est une ville très culturelle donc Thiès tay limay wax rek communauté culturelle yi nga mëna fekk ci Sénégal yëpp bo ñëwee Thiès da nga leen fi gis donc tay day dal di jaadu ñu màggal loolu woné ko ndax développement bo gis wax dëgg yàlla mënul dem euh, sans culture édition bi nga xam ni euh, dama ko tuddee édition de de la maturité mais surtout édition des innovations ndax tey gis nañ am nañ activité yu bari ñu ko ñambaas tey ci édition bi te nekkul woon ci yële lu ci mel ni benn carnaval c'est-à-dire ab doxantu bu mag buñ bëgg a def ci dëkk bi nga xam tey euh, culture yëpp

ko ñu mën ko dundat waye eh, xalé yi ndaw yi mëna xam tay parrain bi lan la defoon eh, ci ci dundam. le gouvernement à travers eh, le ministère de la culture bu ñu bëggee jël bu ñu jëlee de la décision tay festival bi ñu boole ko ci agenda bu ministère de la culture loolu mooy rek affaire bi solo bi mu am ak yitel na leen loolu donc rek j'en profite euh, di euh, à tous les Thiessois les acteurs culturels que le festival est euh, un festival donc nous, sommes nañu du 28 au 31 décembre Nous avons le festival bi kat nous bi du parce que l'ambition de le maire le festival bi ñu internationaliser ko donc nous sommes mobilisés, comme le préfet préfet coloration politique activité Thiès la Nous ku aussi des services ñoo concentré, service déconcentré avons au niveau de Thiès Nous avons bu ci war profité comme ñen ci ñoom ni ñu jëlee engagement pour jappalé ñu ba festival bi ñu mënti am ndam lu rëy